jaa ngeen jëf sama gars yi caméra de surveillance yi wax nañu kii ngeen gis ci image yi musol yére bu ñuul mbaxane mi ak t-shirt bi mooy sàcc bi toj sa wata tey ci suba gi ci alxemes ji nga xam ne férié la mu ngi ko def sept heures cinq du matin ndax loolu la caméra de surveillance yi affiché boobu fekk na gardien bi ci koñ bi ñibbi na boobu fekk na borom boutique bi ubbeegul paa yi demoon jàkka ja ñibbisi nañu ba fatu ci seeni kër tànk yi ngeen gis da ko romb rek dugg ci kër gi mu door a jug tàmbali ci liggéey bi kon fii la toog ba mu leer ko ne koñ bi wét na lool xale bii ngeen di seen ci daara ji la nekk ci koñ bi mu daal di wogganti tubayam jublu ci woto bi ndax dafa romb sax njuumte googu laa def te nangu naa ko te di leen ci xelal ngeen wattandiku bàyyi benn objet de valeur ci seen biir woto man nag li tax ma bàyyi woon sama euh, sac sama oto mooy démb damaa yittewoo woon sama studio pour voix off yi may def publicité yeeg voix documentaire yeeg publi reportage yi ma daal di fab sac bi def ko saa woto génn sama kër 5 heures du matin dem liggéeyi yegg si 19 heures 45 yàkkamtee seetaani match bi ba fàtte sac bi ci ginnaaw donc bi ma reere ba pare ak coono boobu ma ne xaaral naa dem tëdd xaw ma woon ne waa ji dinañu ginnaaw normal heure bi dina ma fekk man boobu daanaka yegg naa sama bërëbu liggéeyukaay daanaka jamono yi may def résumé d'actualité fii nag dafa ñëw ci wata bi tànk yi ngeen di seen waa ji la mu xool ba mu leer ko ni kenn nekkul ci koñ bi mu dool di euh, fab lu mu tojee vitre oto bi dellu si waat mu leer ko ni kenn déggul toje yi mu dellu si dugal loxoom ne coppet saak bi daal di romb waaw fii la ko bayee voilà fii la jëlee sac bi sac bi nag benn ordinateur moo ci nekk benn carte son benn micro professionnel studio benn zoom HN6 bu ànd ak accessoire yëpp am na ay casque ay euh, support am na ay trépied micro am na yëpp daal ci biir sac bi ngeen seet ñu ñaan ñëpp ñi nga xam ne dañuy ñëw di leen jaay bagage yi jàpp leen ne ku ko jënd ndey ji sàcc la la yoon di toppee ndax rësal sac bii ngeen gis sac bu marron la ko def sept cinq ba sept heures quinze waaye waa ji day dellu rek waaye du sori kon leeree ne li sàcc waa dellu si waat na gis nga li di ab ci woto bi fii nag lay duggee boîte à gants bi lu ñu di xool lan moo ne ci biir heureusement pour lui heureusement pour moi objet yi fa fekk ay couche la ay bon yu ma jox yu ma yi ci ak internet bi mooy bon Auchan yi loolu la fa fekk fii dugal na yaram wi ci biir doon xool li nekk ci biir sax njuumte gi ma def nag mooy bàyyi sama saak ci biir moto bi waaye àllarba ji muy mercredi bi dama génn sama kër 5 heures du matin yegg ay 19 heures 45 laa wàcc sonnoon lool ci journée bi nag doon yàkkamti ne xaaral naa gaaw daw seetaani match bi deuxième mi-temps bi du moins voilà ma dikkee dama yàkkamti dama gaare normal rek tëj buntu bi verrouillé daw bu laaloon buntu bi porte bi jëm ko ubbi di alarme bi dina déclenché wu mais dafa toj vitre bi fab sac bi ordinateur bi nag amoon na samay données yu bëri ay publicité jàmbur ay euh, voix documentaire yu ma def ay voix publi reportage ay yeneen projet yoo xam ne c'est des scripts des des ay mbir yu bëri daal ay projets yu bari daal la ñu ci woon ci biir ordinateur donc fii ñëwaat na xool ba mu leer ko ni dara nekkul ci boîte à gants bi du ko intéressé nag mooy su diggante ñaari chaise yi fi ñu nekk foofu la ubbi yam foofu ay kurus ak ay parfum ak ay singom ak yooyu xam naa yooyu moom yitteloowu ko woon euh, mu daal di koy fab donc li ma dal nii erreur la man nag suñu kéem ci fa ma mooy di toog lii bi ñu toogee di xool ba xam nit dina ko rombam déet bii nag ci la jëlee saak bi ni wërëñ delluwaat takk ay airport yor telefon portable am dox comme si de rien ku ko gis day foog ne day day liggéeyi image yi daal lii la ñu caméra de surveillance yi wan ñu ne woon nañ ko partagé ak yéen ñu ngi leen di gërëm ci taxaw bi ngeen di taxaw jàngeen jëf